del déglu del xool internet yu Feeling Dakar TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen dalal jàmm encore une fois di leen jaajëfal bu baax ci topp ngeen topp seen site bi di Feeling Dakar première seen people et politique ni ngeen ko baaxoo xamee ñun ñu ngi fépp ci lépp donc lépp lu leen di jariñ dañ leen koy euh, indil tey nag ñu jàkkaarloog suñu benn sëriñ boo xam ne euh, ñu bari xamaguñu ko li ko waral mooy ku jafe jot la ku jafe gis la ku jafe am la itam ñun nag comme liñ leen ko waxee fépp fu ñu xam ne njariñ ma nga fa danañ fexe ba indil leen ko muy sëriñ Fall sëriñ Fall nag euh, jafe woon na lool ñu jot ko waaye tey fexe nañu ba am ko ngir mën a waxtaan ak moom ci jafe-jafe jamono. donc Serigne Fall bala ñoo def dara dañ lay bàyyi nga nuyoog internet yi. Euh, bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ñu ngi am kontaan ak mbégte bu baax macha allah si. dalal bi ngeen ñu dalal bisimilah. mu mm-hmm. noonu euh, Serigne Fall euh, sans plus comme waxtu bi dafa xaw a gàtt ak ñun te yow sa temps barewul euh, tax na dañuy tënk jotaay bi rek waaye dañuy jiite waxtaan ci actualité. njëkke ci wàllu sëy yu bari yi nga xam ne gis nañ ko jamono ji ci Sénégal rawatina nag sëy yu ñu gën a siiw ñu ciy nemmeeku na li ci ëpp ci sëy yooyu. Mm-hmm. buñ leen di takk ci ay millions lañ leen di takk. Mm-hmm. waaye buy tas tas bu gaaw lay tas ñu jéggal ma ci baat bi. ma bëggoon xam lu waral sëy yooyu di gaaw a tas sëñ Fall. waa sëy yi li waral mi tas li sëpp li si jiitu laa lay njëkk a wax ni sëy yooyu mbëggeel du ko lal. Mhm. li koy lal mooy jigéen bi dafay matérialiste daje góor boo xam ne am na les matériels qu'il faut. Mhm. pour ñu mën a ànd. Mm-hmm. waaye sëy lii tax mu barkeel te yàlla def mu yàgg yonent bi mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam dañuy sëy mm-hmm. lu can bi gën a néew rek mu gën a barkeel sëy bu can bi gën a néew mooy sëy bi gën a barke te sëy li si ëpp maanaam sëyu bës la rek waaw yàlla du koy lal te ku nekk danga nga siy bëgg rek li nga si bëgg du njaboot gu barke moo la si tax a jug du am si woy woo xam ni ëllëg dañ lay nettali lu baax danga nga si jug pour gagner si benn budget bu budget boobu jeexee nga dem. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. kon dafa mel ni ñoom euh, intérêt moo leen cee tax a dugg bu seen mbir baaxee ñu daw. li si li si bëri intérêt la ndax li lay wan ni intérêt la jigéen ñooñu la plupart ñi ngay gis nii ñëpp si média yi. la plupart kenn du si sëy ku ñàkk. waaw koo xam sëy bi da si dugg li lillahi wa rasuli te yàlla rek tax du am te li lay wan ni du yàlla tax kooku bu demoon ba ñàkk dangay ngay gis sëy bi am. sëy bi yam foofu noonu. te la plupart na ma yàlla jégal Mm-hmm. sëyu lii la rek comme ni muy nekkee sëyu événement buy doon tamit tas tas événement lay nekk ñëpp mm-hmm. si jot temporaire lay nekk ne day gaaw a dem yoonam ba tey dañuy xuus ci côté actualité euh, xam nañ bu baax ne euh, bu yàggul dara seen benn bu ñu naan Amidou Sidibé mm-hmm. daal dina jëf-jëf ju ñaaw ku ñu naan Lobe Ndiaye ñuy nangu ci information yu bari nag am na ñu naan dafa bëggoon def lu ay ñaan ñii ne dafa bëggoon luxus xaalis luxus xaalis ci ci wàll bi est-ce que lu lu dagan la ci sëriñ waa waxuma sax lu lu lu balaa ñëw lu dagan ak lu xalaal sax dañuy wax ni loolu dafa amut soxna Lobe Ndiaye ñu ngi koy massaw di massawu njabootam yëpp te comme ni ko ñëpp waxee man xaw ko waaye ak d'après liñ déglu ci actualité yi nee nañ jàmbaar la liggéeykat la te ko amoon jom la di dimbali njabootam ak ay waajuram waaye ñi ngi wax lenn sénégalais yi nañ yeewu ku liggéey ba am ñetti million nit ni la ñëwal ma defal la ko juróom benn million xam nga ni loolu du dëgg moom bu ko amoon dana ko def xaalis boppam du woo jëli ay ñeneen nit di leen ko defal loolu maa ngi ci yee sénégalais yépp waaye li ma la bëgg a xamal ñaan goo xam ni dafay joxe xaalis am na te ñaan googu ñu ngi ko liggéey ci ñaanu samp wayan suluka laahu nasran aziza mi ngi ànd ak 818 xobu wasosoor boo adatee wayan suluka laahu nasran aziza 818 la lay jox wasosoor boo ko as boo ko adatee chiffre valeur numérique bi 818 la lay jox loolu képp kuñ ko defal di nga am wërsëg waaw càngatu xaalis am na lu ñuy sampee nit pour mu am alal am na waaye loo xam ne ay soppandi alal loolu amul ku ko mën jarul ngay woo nit ñi defal ko sa bokk wala nga defal ko say mbokk waaye bul ko defal mbokki jàmbur boo gisee ndaw si li tax waa ji gën koo rey loolu si la bokk li tax mu rey ko wax na ko loo xam ne mënu ko te ndaw si dana ko poursuivre justice te xam ne bu demee justice du am yoon ndax loolu dañ ko fa tere mbiri soppandi alal loolu nag ñu ngi koy ñaawlu lool ñu ngi koy ñaawlu te loolu bokkul ci yoonu sëriñ te mi ngi yàq deru sëriñ mm-hmm. waaw nit ñi nag xàmmeetuñu kuy sëriñ ak koo xam ni àddunaam dafa yàq amatul lu mu def Mm-hmm. mu ñëw si yoon wii di si wut dara lu mu lijjantee boppam. Mm-hmm. Mm-hmm. voilà mu ngi noonu dafa am ñu jàppee métier mi commerce waaye am na ci ñoo xam ne itam ay borom xam-xam lañu. danañ ñëw itam ba tey ci Serigne soosu la ñuy des euh, waaye ku bëgg a jox koog Serigne Fall defal 77 717 72 72 numéro baa ngi noonu toujours di affiché ci bas d'écran bi euh, sëñ bi gis nañ Serigne su bari léegi dañuy xoqaliku. Mm-hmm. sol ay ngandi yére mm-hmm. yére di kurus mm-hmm. takk di jaaro uh, kaala woo lu nañu dugg ca te daanaka bu ñu waxee wax lu toj pénc maanaam wax toj toj ñii ne dañuy xar géej gi ñii ne lii ñii ne lii yow ñu gis la ngay ku simple koo xam ne bañ la dalee gis ba léegi ci ay yére yu kii rek ngay sol lu lu lan ngay wax ci loolu waaw dinaa la nettali sax benn anecdote boo xam ne mës na maa dal fii si Jili Mbay benn jigéen mës na ñëw di ma seet si xam nga man des fois damay sol ay pantalon ak ay tiset mhm. mu ñëw ñu ne ko kii mooy sëriñ bi mu ni kii du sëriñ bi noonu la def dafa delluwaat ndax si yére yi ma sol mhm. dama la bëgg woon wan ni ñaan yàlla mhm. duut si ay yére nit ki liy faj soxla nit ñi du yére bi ndax olof yi sax dañuy wax ni nit li muy gënee nit buy sangu du ko simmi te xam nga yére booy sang da koy simmi kon lii firndeel ni diw ñaankat yàlla la du si yére du si ngandi yére du si kurus du si takk ay ngandi jaaro loolu lépp amul njëriñ te tamit lu jëm si jaaro bëgg naa la see wax waaw jaa jaaro réew mi sax rus naa man rus naa wax si jaaro ndax ku nekk a ngi wax jaaro. Mhm. te jaaro dafa am yoon jaaro ñu ngi koy liggéey juróom-ñaari fan. si si juróom-ñaari fan bi sax guddi dafa am looy wérd te boo ko wérdee pare dafa am si bois sacré boo koy teg nga soog koo jox nit ki. Mhm. waaye li ma gis si jamono ji itam xew ñu naan la ay jaaro dañu koy dóor si nen wala jinne bee ma ko jox yooyu amut. sénégalais yi nit ñi dañuy dox seen psychologie dañoo xam ne nit ñi dañoo ragal ay mbiri ji nekk ay mbiri yooyu yëpp amut ay wax yu dul dëgg la mhm. képp ku la wax jaaro da koy génnee si nen waxul dëgg ndax li li li confirmation bi su suñu amoon fii nen ma defal la confirmation bi nit ku la wax jaaro da koy génnee si nen indil ko demal jëndi nen nga indil ko ko ndax dina génnee jaaro mhm. du génnee jaaro léegi moom nenam bi mu yor si lay jël xo xo toj nen bi defaat si kolkere si boo ñëwee mu dóor ko ni la jaaro bi moo si génne jinne bee la jox nen bi te benn jinne joxu la nen mhm. jaaro yëpp tëgg yi ñoo ko defar amul beneen jaaro bu jóge fenn nañ wax dëgg man jaaro yi may defar su ma ñëwee Dakar fii marché Dior fii laa koy defaree si tëgg bi li si dem si secret man maa ko si def waaye tëgg yi nekk fii ñoo koy defar mhm. amul jaaro bu jinne di joxe ku la ko yàlla lim bind doomu aadama moo si gën a for loo fi gis doomu aadama moo ko defar avion moo gën moo gën a rëy jaaro te doomu aadama moo ko defar bateau moo gën a rëy jaaro te doomu doomu aadama moo ko defoon nit ñi nañ nekk nit kuñ lekk sa xaalis yaa ko def kuñ wax la lii jinde moo ko joxe nga gëm loolu yow yaa sànni sa alal waaye bul wax sëriñ bi dara. Mm-hmm. Mm-hmm. mel na ni eh, ci seen géew boobu eh, bari na loolu loo xam ne xebet na maanaam lu nit ñi eh, sib la daal daanaka parce que sëriñ si ni ñuy waxee léegi. Mm-hmm. ci réseaux sociaux bi whatsapp yeeg di yàkkante lu mel ni xeme entre ñoom xeex boobu itam war nga ci mën a wax. waaw xeex bi li ma si wax xam nga ñaan yàlla. clients yi sax ñi seetaan réseaux sociaux yi war nañu yeewu sëriñ bu nekk si réseaux sociaux yi di dàgg sante mhm. man mii de su ma doon ñaanlu du ma la ñaanloo ndax maanaam ñaan yàlla bu ñu demee ba mel ko def ko milieu showbiz mu mel ni Waly Seck ak Sidi Diop ñiy xasante mhm. te ay sëriñ loolu taxu leen woon a jug sëriñ li ko taxoon jug mooy wax lu baax jëf lu baax fajal nit ki soxlaa mu dem nga dem nga yeeweeku mu yeeweeku mhm. waaye bu ñu demee ba ay sëriñ di xasante mhm. kon nañ xool loolu lan la loolu doona ñaan yàlla waaw sëriñ li ñu ko xamee mooy wax lu baax jëf lu baax jàng ak jàngale yare ak yaraate waaye bu ñu demee ba sëriñ ñi nga xam ni ñooy hoote woo sëriñ war nañ leen a xamal lan mooy sëriñ sëriñ mooy koo xam ni dangay àttandiku lu lew dangay mm-hmm. dangay da lekk lu lew mm-hmm. di attandiku lu xaraam mm-hmm. di wattandiku wax ju ñaaw ndax wax ñaan yàlla moom ku ko bëgg a def foog nga xam critères yi di lekk lu di wax ju di wax wax ju baax di lekk lu lew ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni mu ni képp koo xam ne da ngaa nar a wax lu bon nga noppi moo gën waaye mu ni nag wax ju baax moom moo gën noppi Mm-hmm. kon nit ñi dañ xoolaat liñ jëflante yi ñu xoolaat te li ma gën a métti mooy xastante bi sëriñ si def képp koo gis muy xaste di wax lu ñaaw li muy xaste lépp si boppam la nekk dafay def semblant di xas ñeneen fekk moom boppam rek lay waxal mm-hmm. kon nit ku baax du tiim moroomi nitam di ko wax lu ñaaw te mm-hmm. képp ku tiim nit di ko wax lu ñaaw xëy na yow loolu moo nekk si yow moo tax ngay joxe lu ñaaw waaye ku yor lu baax lu baax rek lay joxe wasalaam Euh, mel na ni loolu leer na Serigne Fall lañu dalal ci jotaay bi la tey 77 717 72 72 mu nekk kilifa goo xam ne euh, bii mooy première fois mu génn te laata muy génn dafa wax lu leer naa ñi maanaam daanaka euh, am na ñu ko wër ñoo xam ne digaluñ ko nag mu génn ci seen YouTube bi ndax géew bi ni mu yàqoo. Mhm. waaye terewul ñun itam danañ def suñu warteef ba xam njariñ li ne ci yow nit ñi xam ko. Euh, te lépp rek di tegu ci yoon. Mm-hmm. macha allah euh, sëñ bi dañuy ñëw ci côté beneen nit koo xam ne euh, xam nañ ko ci réew mi yëpp muy Ousmane Sonko. Mm-hmm. fan yi coow mu ngi mu ngi xaw a bariwaat ci moom jabar yi dañ koy bëgg a posone. Mm-hmm. ñii naan dafa Covid 19 ñii naan dafa nàngam ba mujj na nag mu génn sax nag fan moom wax waxal boppam. nit ñi xam ne kii dara dalu ko lan nga ñuy wax ci avenir Ousmane Sonko. Ousmane Sonko liñ ko mën a wax jeune la ndaw la te yàlla defal na ko lenn population bi nit ñi jublu nañ ko. liñ koy diggal mu moytu mu gën a sécuriser boppam. sécuriser bii may wax sax duul sax si mbiri baatin même si wàllu saayir sax na sécuriser boppam ndax nit boo demee ba am ay soppe rek mi moomatoo sa bopp waaw. voilà kooku mooy Ousmane Sonko dénkaan boobu la ko sëriñ bi jox sëriñ bi dañuy ñëw ci ci ci wàll wi ngay faj. Hmm. muy euh, yow di nga faj impuissance sexuelle. Hmm. di nga faj itam hémorroïde. Hmm. waaye dañuy njëkk ci impuissance parce que ñu bari nee nañu. kenn mënu koo faj wala boog am na ñu ne mënuñu ko yow est-ce que mën ko yow. waaw impuissance sexuelle dañ koy faj waaye képp ku la wax da koy fajee sunguf mënu koo faj. Hmm. waaw lenn nag nit ñi ñu ngi koy faral di def dañu lay jox sunguf boo xam ne da ngay dem booy jokkoo nga yëg sa bopp loolu aphrodisiaque la waaye du faj loolu tamit ñun am nañ ko ku bëgg ñu jox la sunguf boo demee nga jot sa bopp waaye li nga xam ne dafay dindi feebar bi mu tàqali ko yow loolu tur yàlla moo koy dindi bu fekkee da ngaa feebuloon nga jotaat sa ngóoro comme ni nga ko daan yëgee waaye ñu ngi koy dindee si tur yàlla ndax ngóoro ñaar la am na ngóoro boo xam nit ki dafa loolu feebar la waaye am na ngóoro boo xam jugee na si nit ki dafa am lu ko tuxal si nit ñi loolu xàndandooram bi mooy soxor waa kay su boobaa turu yàlla la ñuy utiliser. turu yàlla rek la ñuy liggéey pour mm-hmm. bind ko si. Mm-hmm. turu yàlla bi nag mën nañ ko bind si jaas yi. waaw bind ko si jaas yi. xooj ko bu tàngal ndox ba tàng ñu xooj si jaas bi ñu jox ko nit ki mu naan ko. wala am na yeneen yoon yu ñu si mën a liggéey temps bi du maye ñu leeral lépp. waaye ku bëgg yeneen ñi nga xam ne moom la sëñ bi denc. mais li ma la wax daal ngóora moom si gàttal kenn du ko fajee sunguf sunguf moom aphrodisiaque la rek te tubaab bi yor nañ ko. Mm-hmm. waaye si mooy feebari ngóora mhm. yor nañ lu koy dindi mhm. dindi ko ba mu set wicc si yow ba nga mel ni nga meloon ni nga daan yëgee sa bopp macha allah mhm. te lépp nga koy jaare ci voie wu muy la am solo bu fekkee wàllu émérite parce que bari na ñu mu sonal chauffeur si tailleur si euh, ñun ñi nga xam ne sax dañuy liggéey ci wàllu technique souvent li ñuy toog moo ëpp li ñuy kii te toogaay boobu mën na indi yooyu euh, émérite tamit noo koy dindee ci nit waaw émérite yor naa si benn boo xam ni garab bu wér la te yàlla dafay ñi ma ko jot a jox ñëpp alhamdulilah ñëpp sant nañ si yàlla gis nañ si saafara. sëriñ si bëri ñi ngi wax si wàllu émérite ñoom seen bopp sax dañoo émérite te mënuñ saafara seen bopp. est ku saafara sa bopp ndax war ngaa woo askan bi ni ñëw leen ma saafara leen. déedéet ah déedéet te ñu bëri ñi ngi woote woo nekk si internet bi di woote woo ak sëriñ. Mm-hmm. des dañuy soxla ay mbir dañuy am fu ñuy jaar dem wuti ko fa. bu ñu demee jox ko kañ ko jox mu jëfandikoo ko ñu ni si ñoom la jógee fekk jógewut si ñoom dafa am si kum ah. waaye nit da ngay am sutura. waaw mm-hmm. ah, kay macha allah euh, Serigne Fall la ñu dalal woo ko ci 77 717 72 72 moom nag heure boo ko woowee bi di nga ko jot. te loo soxla itam mu mën la ci eh, taxawu eh, donc sëriñ bi eh, dañuy waxtaan rek ci côté itam xaalis mm-hmm. ndaxte comme sànq ni nga waxee ci lobe am na ñoo xam ne dañuy bëgg a dem joxe nàngam ñu soppil leen ko mm-hmm. loolu moom nee nga amut déjà mm-hmm. léegi yow ndax am nga secret boo xam ne secret bu foor la sànq junj nga ko est que mën nga ci ñëwaat ma ni am naa secret boo xam ni secret bu foor la si wàllu alal te ku koy def kenn du la yërëm te doo ñàkk mukk xëy joxe di nga am loo suturloo. waaye bi dee soppi xaalis man mënuma ko defuma ko. waaw loolu daal waaye yor naa secret boo xam ne ku ko jëfandikoo doo ñàkk loolu kuñ ko defal nga ñàkk. mooy yàlla namul si yow am sa dund gépp da ngay dund ba deeta doo am. wasalaam. voilà situation wu réew mi tam fi mu ne metti na lool sëñ bi gis nañ ne ñaari xalif général wàcc nañu liggéey bu laayeen ak bu ceneba gis nañ ni itam ndaw ñi li ñuy dem bari na trop accident yi fii Covid bi di fii loolu tamit lan nga ciy dénkaane sëñ mi réew mi dafa am musiba balaa te balaa bi du mbas mi rek am na balaa boo xam ni beneen balaa la bu dul mbas mhm. waaw loo xam ni mi ngi ci dëkk bi te nit ñi war nañ ci def ay saafara mhm. réew mi dafa soxla tuur deret xam nga ñu bari ñi ngi naan tuur deret dafa xaram mhm. tuur deret xaraamut tuur deret kon bu xaraamoon tabaski duñ tuur deret ndax doomaadama aadama dañ la doon rey yàlla wàccee xar remplacé ko ak doomu kon nga gis mala yi yàlla daf leen amal pour saafara ay yi si dëkk bi. Mm-hmm. deret deret yàlla daf koo def si nit def ko si mala mm-hmm. léegi dereeti mala yi moom la yàlla def pour ñu defee ko bu buñ ko deful rek ñun suñ dereet yi mooy génn mooy waral accident yu bëri yi dereet di tuuru moo tax foog ñu tuur dereet mënta ñàkk ay litres yu bari foog ñu def ko bu buñ ko defee réew mi dana am jàmm te dana mm-hmm. am ndam dana yëkkatiku mm-hmm. macha allah sëriñ bi waxtu bi xocc na euh, comme yow sa temps barewul euh, dañ lay bàyyi rek nga def dernier moo bi ñu xoolaat beneen jotaay bu ñu tënk bu yaatu nag yaatal ci lu bari ñun ay jaamu yàlla rek lañ te gënuñ kenn lu mooy yonentu dafa wax sallallahu alayhi mi ni ki gën ci nit ñi mooy ki gën a ragal yàlla nit ñi nañ attu xeebante nañ waxtu tamit loo xam ni dafay indi ay fitna lu yàggul rek damaa gis ci benn dëkk bu ma demoon coow lu rëy am fa te li ko waral mooy wàllu xeet yooyu nañ ko attandu ko lislaam nanguwut yooyu mhm. te ñuy dénk nit ñi nañ ragal yàlla ci zahir ak ci baatin ragal yàlla si li feeñ ak si lu nëbbu buñ ko defee rek suñu mbir yëpp dana yëkkatiku te benn jullit du sonn teñ dimbalante lillahi wa rasulihi te yàlla rek tax ñi ngi am kontante ak mbégte bu baax si dalal bi ñu dalal di wax ni wa ma zalika lallaahi bi azizil wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Serigne Fall la woon 77 717 72 72 muy kilifa goo xam ne yàlla may na ko ci wàllu baatin ñun nag ñoo ko jël première émission tey jëlee waxtaan ak moom du ñàkk mu mayaat ñu beneen jotaay bu gën a yaatu ndax waxtoom xaw naa euh, tënk loolu moo tax ñu tënk jotaay bi leen jox dig daje ci beneen jotaay fii ci Feeling Dakar TV première scène people et politique du Sénégal jërë ngeen jëf. del déglu